allo wi hey ngaa ko blende bro nax mu gaan waaye keroog ñu on était dans ton show là c'était waaw ah, yaa nag yeah dégg ngi ci album bi yeah gars yi ñu koy wét bu baax yeah même BMJ mi ngi waaj projet am quoi ok kaddu gaal seen yaa ngi biir bro dañ koy dóor incha allah ok jaajëf yee gars yi gis ngeen yëpp yëpp yëpp ñu yàgg bëggee kàddu gaal seen ñu yàgg bëggee seen kàddu tey ñu ngi leen waajal ay émission de taille émission d'enfer yéen a ma gën a xam ci biir été bi yéen a ngi gis téléphone baa ngi nii ça n'arrête pas de sonner Dip Doundou Guiss Ngaaka Blindé BMJ kool mënti yaakaar ci show bi rek gars yi foog instant yi ñu ngi ñu di xaar instant pour ay émission d'enfer yee koñ leen ñu rek next week bientôt yàggatul aussi euh, pour ne pas oublier aussi euh, cap de ak books clash bi ku ne ko kii naan ay takk serum fii kii naan ay bu kenn bu kenn pop ci rap da lépp di ko am live and direct ak ma man Paco incha allah wér ko rek dans les next week jaajëf gars yi bra nice